Yola daw yoon liggéey jëriñ li fii waay Chers amis fidèles internet, Vico avait choisi de nous suivre partout à travers le monde sur la chaîne des grands événements VIP People TV, s'informer juste vrai. Comme j'ai l'habitude de le dire, su abonné vous noppi bu faire la cloche de notification pour une vidéo en exclusivité. Aujourd'hui, on est le 20 décembre 2023 nous di le numéro scandale du jour. Comme nous avons dit, nous dañuy xool li gën a scandale ci journée bi ñu daal di koy indi def suñu introduction faram fàcce ko jox vidéo bi ba commenter commenter ba aussi à votre position ngeen am sen sañ-sañ di commenter lo xamanteni jangat ko ci li ngeen xamanteni ko lan raison pour laquelle ce mercredi 20 décembre 2023 marquant les 20 ans de la disparition de notre cher et regretté président de la République, euh, Léopold Sédar Senghor. Donc, euh, le poète, l'académicien, le grammaticien qui nous a quittés le 20 décembre 2000. 3. Aujourd'hui, 20 décembre 2023, 20 ans déjà, nous prions que son âme repose en paix. comme ni ma koy toujours ces scandale du jour dañuy dem studio 1 xool Zeyna la indi et scandale ñu daal di dès le soir, sur suñu plateau Zeyna à toi l'antenne lan nga ñu indil scandale du jour ci ce studio 2. ci VIP People la scène des grands événements la scène qui vous informe juste et vrai xam ngeen ne nag kii di ah, médias, Dias dafa am procès le 22 waaye ginnaaw loolu noonu bi bi mbir yi ah, ah, génnee ba ñu jàpp procès ba ñu communiqué datu procès bi boobu ba léegi ay polémique dafa daal di juddu ñi naan dafa wor ñii naan mérité na ko ñii naan voilà dañ ko bëgg a galgal donc nag mu nekk ay polémique yoo xamante ne xaw na doy waar Barthélémy Dias nag kenn dootu ko présenté mu nekk fa maire bu dakaar léegi nag ki nga xamante ne nag mooy Mollah Morgan dafa daal di yëkkati ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci ki nga xamante ne mooy Barthélémy Dias nañ dem déglu li nga xamante ne Mollah Morgan wax na ko ci Barthélémy Dias. kat munul wessu Barthélemy Diaz billahi wala man moko ko tan ay kat sa kat sa ay kat sa kat sa nan la ko nit mën waxe waxee la ne laa ay way yalla nañ yalla muccal te musal ñu ci wor kat mais Barthélemy moy wor kat Allah akbar wor ba xul yalla nañ yalla musal way bu ñu waxee naan Ousmane Sonko ay bu ñu demee premier tour da koy gagné lool ay waxi kessaw la <laughs> parce que alxuraan sa baye xamna ni Macky Sall sa mam buy ànd ak sa bàyyi di dori kaas ak sa bay barki alxuraan xamnañ ni Macky Sall bu fa ñewon and ak sa bay ak sa yaay ak yow Ousmane Sonko door leen premier tour billahi xamna ni da nga mandi won mais yow kese bo baye mandi ak waccu yi ak day 12 bi mandi ba nek nit ba lepp wacc nga wacc sa dangar geej lepp mandi gi ba def coccu ñu fekk la nga nek nit ko la wax ni Macky Sall bu and ak sa bay ànd ak yow ànd ak sa maam Khalifa Sall mag Ousmane Sonko noqu leen ci premier tour avant midi xam nga loolu boo koy werante danga ngaa màndi. ñoo ko déggandoo moom nag nee na kii di Barthélémy Dias bu toogee naan gasta gasta nan la ko nit mënee wax te Sonko bi muy wax gasta gasta dafa taxaw ci ginnaaw euh, Sonko di wéy naan euh, Sonko mooy seen euh, baay Sonko moo fi nekk donc tey bu toogee ci ay conférence de presse am naan nit nan la mënee jàkkaarloo àdduna jàkkaarloo population wu Sénégal naan ko gasta gasta donc moom nag nee na kii di Barthélemy Diaz dafa wor te booy wor wor kat ba daje ak ki nga xam ne mooy Barthélemy Diaz jàpp ko nan nag Barthé dafa wor te ki mu war du kenn lu dul a patriote yi ki mu war du kenn ku dul ak ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko c'était les eh, propos de ki nga xamante ne mooy euh, Mola Morgan jëmale ko ci ki nga xam ne mooy maire de Dakar muy Barthélemy Dias mi nga xam ne am na procès le vingt 22 moom nag nee na du dem wuyu léegi nag day dem du dem lépp dina leer le 22 incha allah mu nekkoon ay kaddu yoo xamante ne ngir di Mola Morgan moo ko yëkkati. jërëjëf.